dafay dem ci DER ma bëgg ku adhéré wul ci nano crédit na adhéré ci nano crédit bi Adja Fatou Touré nano bi du fay parce que ñaar rek am te ñaari du benn nano bi ñu fay ko ñi fay ñu delloowaat leen. parce que jigéen ñi dañ ciy adhéré dinañ leen convaincre ba ñu ñëw adhéré ñu organiser dañ leen di defar mutuelle de santé mutuelle ba professeur ci la bokk bu di leen andi ci yow mais di nga wax lu ñu dégg dinañ def prévention parce que man ci santé prévention laa ci gën bëgg parce que le président Bassirou Diomaye Faye dafa am lu mu présenté muy son programme du lu ni jox la koy faj bu soxlaa pour faj doomam du àbb kenn bu soxlaa pour suturlu du àbb kenn bu soxlaa pour dimbali jëkkëram du àbb kenn loolu liggéeye koy maye mais financement moo koy may financement boobu dañ leen a bëgg a former ngeen am formation bu dëgër xam fi ngeen jëm xam yéen ay kar waaye nit soo bëggee dimbalee da ngay wax ak moom luy mën nekk xaalis bu doon am sàq it buñ dee ñëpp te duñu delloo day jeex kon nañu ko fay nañu ko fay li ñu wax fii tey commencé cinquante mille dem ba un milliard loolu mooy xam ngeen ni ñuy liggéeyee xam ngeen ni ñuy jële xam ngeen ni ñuy delloo li ñu des mooy dimbale bu may signé ñu di ko dugal waaye damay tëj ba ci kanam ba xaalis bi dellu si bu dellu see ma door a ubbi kon damaa bëgg ngeen remboursé